asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme nuñ ko defee saa su ne di leen dalal fii seen chaîne Dakar People ñuy ànd ak yéen ak siiwal ak feeñal di wéyale borom xam-xam fu mun a nekk ci biir réew mi tey nag amoon nañ contentement ak mbégte beneen yoon di dalal kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi ñu gën ko xam si Thierno Tidiane Ba.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 Eh, fi may commencé nag xam naa ne suñu mbokk Palestine Palestine yi Palestiniens yi dañ leen war a ñaanal parce que Palestine eh, problème def dafa am eh, doy na waar lool jullit yi li ñuy daj essa yi wala ci zaman bi nii wala lu ñu daj ci zaman bi nii doy na waar lool ñi ñuy rey foofu tamit bari nañu lool lool lool ak jigéen mag mag ndaw ñépp amul amul benn yërmande bu ci feeñ maanaam rey boo xam ne doy na waar lool lool lool ñu ngi koy nakkarlu tamit bu baax a baax a baax parce que yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon su ngeen gisee dara loo xam ne lu bon la na ngeen koy changer ci seen loxo su ngeen ko mënee changer su ngeen ko mënee dindi ci seen loxo ngeen dindi ko su ngeen su ngeen ko mënul tamit ngeen def seen làmmiñ ngeen dindi ngeen wax baan ba mu deñ su ngeen ko mënul tamit ngeen nakkarlu ko ci seen xol ñun mën na mën na am nag suñu loxo yeggul foofu wala suñu làmmiñ du mën a yegg foofu want mën nañu ko de naqarlu ci suñuy xol ñuy ñaan yàlla tamit eh, dañuy ñaan yàlla suñu benn sëriñ da daa bind ñetti bayt mooy Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu nee na Sénégalu yaawi taxta zilli muhammadin wa yaabud rabban jalla sha'nan muwahida فمن ظن شيئا غير هذا فظنه سقيم عليل باطل لن يؤيدا رويدكم أهل الكنيسة ولن تروا مدى الدهر أننا نترك محمدا maana mu ngi mu ngi mu ngi wax ci ñetti bayt yi maanaam dafa tudd Sénégal waaye su tuddee Sénégal rek parce que moom fii la dëkk wante àddina bi réew jullit yépp la wax nee ñoom bëgguñu kenn ku dul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te duñu nekk ci benn ker bu dul kër këru yonent yàlla Muhammad sallallahu ndax beneen xer du leen du leen doy waaw beneen kër doyu leen bu dul lu dul këru yonent yàlla Muhammad sallallahu kon ñoom ñëpp ci këru yonent yàlla Muhammad sallallahu lañu nekk waa Sénégal waa jullit yëpp macha allah nee na eh, ku am beneen gis-gis budul loolu neen dafa mel ne yow sa gis-gis eh, dafa feebar dafa feebar sax eh, maanaam defa niil tamit neen la du dara waaw ku ku ku jàpp lu dul lool rek ñun ci kër yonte bi sax la ñu nekk rek yow yaa ngay xalaat leneen bés dina ñëw ñu jóge ci loolu dem ci kéeféer wala ci leneen yaa ngi nag sa bopp nee na yéen ahlal kanisati yéen borom église yi yéeféer yi chrétien yi neen def leen ndànk tey leen mbir mi du noon de diira àddina du ngeen mos a gis ñu bay yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi ko mos a bay su mettee dañu koy tey su jafee tamit maanaam su jafe dañ koy téye su neexee dañ koy téye kon loolu moo tax nag ñun eh, eh, jullit yi dañu xaw a sàggan parce que dañu xaw a seetaan waa Palestine dañu leen xaw a seetaan te jullit yi macha allah njiitu réew yeeg bari kenn moo si njëkk wax mooy persida Turquie te macha allah eh, ku ku ku wax maanaam ku ñëwaat muy wax rek moom ngay toppandoo wante fi Sénégal barki dem rek lañ tase fii ñuy coow ñuy kii président bi génnul Eh, gouvernement bi génnul daanaka eh, bariwul ñu génn xanaa sëriñu kilifa yi sëriñu daari ñoo génn te loolu war Sénégal réew jullit la te gis nga bayt yi ci baay bind te tuddaale jullit yi yépp kon loolu lu ñu koy naqarlu bu baax a baax ñu ñu bari jooy nañu ci affaire bi ñu bari nekk na ci seen biir eh, kër wala seen biir néeg ñuy ñaan yàlla ñuy jooy ñuy wax allahuma dammir ah, israil wa man yuayiduhum képp koo xam ne yaa ngi jàppale jàppale Israël yal na la yàlla alak te alak waa Israël te jog jullit yi pouvoir jog leen ndam ci kaw Israël kon incha allah loolu laa bëggoon ubbee ci loolu di wax sénégalais yi nag war nañu seeta seen bopp bu baax a baax parce mbir mi ñoo ci waroon jiitu euh, loolu moo tax na soo seetee ki mu tudd léegi Baye Niass bi mu tudd léegi tudd naa kilifa yépp Eh, dafa amoon relation bu dogoon diggante moom moom Palestine te xutba bu mu def rek da ciy ñaanee maanaam dafiy ñaanal eh, maanaam eh, waa Palestine kon loolu moo tax nag kuy xutba rek ci loolu nga war a xutba kuy waxtaan tamit ci loolu nga war a waxtaanee kon loolu lu lu ñu métti la lu diis si ñun la kon yal na yàlla alak waa Israël te jokk ndam julliti fu ñu mën a nekk ci aalam bi allah ndax bés dina ñëw moytul bés dina ñëw ñu taxaw ñu wax jullit yi kenn du dem mag kenn du aji ndax jullit yi yàlla moo leen waxoon wa atasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu jàpp leen ngooy leen ci buumu yàlla gi ngeen nekk kenn ngeen am doole ah ku leen song ngeen ngeen gañe ko ngeen am am pouvoir ci kawam waaye nag dañu dañu dañu teqali ko waaw ñu uute ànduñu loolu moo tax kon yal nañu yàlla jàppale ba xol yi doon benn incha allah. allahumma amin yaa Cerno Tidiane Ba kàddu yi am na solo trop. dénkaane am na solo trop macha allah daanaka bu ñu paree ci loolu xam naa mun nañ dëgmal waxtaan bi comme saa su ne nuñ ko faral di ko defee am yow waxtaan laaj ak tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bari ci mbiru xam-xam tey suñu question bu si njëkk rek sëriñ bi bëggoon naa ñu def benn taxaw seetlu amal benn waxtaan bu yaatu ci mbiru listixaar tey jii sëriñ bi boo ñu doon laaye biir ci mbiram xaar la mooy dëgg-dëgg al istixaar lan mooy njëriñal istixaar ci doomu aadama Eh, alhamdulilah eh, ñu ngi sant yàlla bu baax di kontaan ci laaj bi bu baax a baax parce que laaj bu war a jiitu la ci laaj yi eh, kuy liggéey ci wàllu xam-xam ci wàllu ñaan lasraar balaa ngay def dara nit su ñëwee ci yow danga koy seetal bi nga xam moom aajo bi lu ci war wala moom bu dee ci wàllu yaramam lan mooy gàllankoor bi est-ce que moom cat moo nekk ci moom te bari na léegi lool wala liggéey moo nekk ci moom wala raf moo nekk ci moom wala ban jàngoro wala gàllankoor moo nekk ci moom loolu nag listixaar moo koy génne listixaar lu muy fiir mooy tànn tànnaloo yàlla ci lenn yàlla nag wax la lii la nit ki am na fooy jaar soo jëlee turam tur yaayam ak bés bi bés bu mu ñëw ci yow am na noo koy jilee soo defee calcul bi maanaam lim boobu adat boobu nga koy wàññi li nga ci war a wàññi nga koy wàññi li des di nga xam kii jinne moo nekk ci moom wala ngelaw seytaan moo nekk ci moom wala liggéey moo nekk moom wala cat mooy nekk ci moom wala leneen leneen moo nekk ci moom bu dee sëy est ce que baax na wala baaxul biddew yi ànd nañ wala ànduñu est ce que ku bu daa bëgg tukki est ce que tukki bi dina sotti wala réew bu mu bëgg dem est ce que baax na ci moom wala baaxul ci moom te dinaa la wax lenn koo gis muy dox am na saar ci saaru alquran yi am na laay tamit ci laay alquran yi te saar yi saa so saa saa quatorze saar la te tur yàlla jaamiu jàppaleen maanaam jàpp saaru alquran yi jaami lu muy mooy tur boo xam ne moo boole alquran nag mooy jaami parce moo boole lépp yàlla neen ma wa maa na fil kitaab min shay aha maa na fil kitaab min shay lépp na ci alquran kon loolu moo tax nag eh, nit ki danga war a xam ban saar mooy sa saar soo xëyee jàng ko wala ban laaya mooy sa laaya soo xëyee nga war ko utiliser maanaam loolu nag listixaar moo koy génne man nit su joxee turam ah Eh, dinaa ko mën a génneel saar bi mu war a jàng chaque jour bi nga xam ne mooy saara wala laaya bi mu war a jàng chaque jour bi nga xam ne mooy doon laaya wala tur yàlla bi mu war a doon turu turu turu yàlla bi muy war a jàpp bu mu war bu mu war a wird bi mu war a zikar loolu loolu loolu am solo ndax loolu day dimbali nit ki mu nekk ci loolu diira quarante wala quarante et un jours wala lu ko ëpp su ko nekk dafay saxal du am solo Eh, saar yi nag saar bi moon na gudd mën na gàtt so guddee nag doo ko mën a jàng chaque jour sa limu sa limu tur nga koy jàng sa limu tur incha allah xam naa loolu moom xëjul ci waxtaan wi wante ku bëgg leeral ci loolu rek suñu wootee ci su wootee ci numéro yooyu rek après dinaa ko leeralal ni may defee listixaar bi nag noonu laa koy defee listixaar bi soo koy def dafa am looy joxe ñu defal listixaar loolu sa saar tamit wala sa laay soo bëgg ñu génneel la ko tamit di nga joxe dara après ñu defal la defal la loolu kon listixaar loolu mooy nit ki nga dañ koy xoolal nga xam lii ma war ci moom lii ma war a doon saraxam wala lii moo ko dal dina baax wala du baax biddew yi ànd nañ wala ànduñu ilax ba mu jeex. macha allah Thierno Tidiane Ba leeral am na solo trop macha allah daanaka loolu moo nekkoon mbiru listixaar bi suñu paree ci loolu tamit bëgg nañ waxtaanee mbiram kaso parce que nekk na jafe-jafe bi nga xam ne guddi ñu toll ñu bëri dafay faral di nekk gàllankoor ci ñoom tey sëriñ bi ku bëgg a mucc ci kaso wala tey ji ku dugg ba pare bëgg a génn ana yan tegtal la Thierno Tidiane Ba làmboo tey ji ba mun ko ko saafaraal waaw wàllu kaso yaatu na lool bari na lool macha allah eh, dinaa des tuddal lenn rek eh, am na maanaam ku dugg kaso ba pare bëgg génn am na am na benn saar boo ko bu muy jàng moom bu dee moom nag jàng ci boppam soixante fois la koy jàng fi mu toog rek moom fi mu nekk ci biir kaso bi noonu su ko jàngee soixante soixante fois ci saasi day génn wala ñu jàngal ko ko ci saasi lay génn ah ba loolu ku dugg be pare wala maanaam beneen saar boo xam mu ngi ci alquran eh, ci hizb bu mujj bi saar boobu soo ko jëlee nga binda ko am na benn laay bu mu àndal bu nekk suratu yaasin soo binde laay boobu foofu ngay dugal turam moom ki ki nekk ci kaso bi xorom lay àndal saafara soo noonu su ko naanee day génn bu dee tamit euh, maanaam bant bant euh, bi ñu teg néew jaax lañ koy wax de waaw jaa jaax soo ci amee bant am na benn tur boo ci bind soo ko ci bindee euh, mu tëdd ci kawam mu tëdd ci kow bant bi du fa fanaan bu dee guddi du fa fanaan bu dee bëccëg du fa yendu bu doo maanaam tey su ko su ko amee su su ko nekkee kuy kuy mu woote kër ga wax leen xaar leen ma reer bu dee guddi la wala xaar leen ma añ bu dee bëccëg kon ko ku dugg ba pare ku duggagul nag am na loo koy defal soo ko bindalee am na benn saar boo koy bindal soo ko ko defalee mu def ko wala mu def ko ndomb kenn du ko tëj kon loolu tamit macha bari na bari na ay façon yu ci nekk kon bu dee ci wàllu maanaam alquraana kayfiyaat yi bari nañu lool kon mën naa la junj lool rek ci wàllu kaso incha allah. macha allah Thierno Tidiane Ba leeral yi am na solo trop daanaka bu ñu paree ci loolu tamit bëgg nañu waxtaanee mbiram en fait daanaka gis nañ ni sëriñ bi mbirum cat guddi ñu toll ñu bëri nekk na gàllankoor ci ñoom ba daanaka tey jii nii bépp mbir bu ñu jëgmal du antu ndaxte cat nekk na lu xaw a doy waar yooyu bu amee dañuy bëgg a def taxaw seetlu donc ci njëriñal muslaay njëriñal kaaraange lan mooy solo muslaay lan mooy njëriñal muslaay ak njëriñal kaaraange. waaw euh, cat daa bari ci doomu aadama yi léegi. góor yeeg jigéen ñeeg ñëpp daa ñoom eh, cat nag ñaar la am na cat bu góor am na cat bu jigéen xam eh, xaalis la moo xam leneen ak leneen la lépp lu muy yaakaar tuuti rek day tas loolu moo tax dafa xaw a nuru maanaam rab ak eh, liggéey ñoom ñëpp dañu tas yaakaaru nit ki ba tax cat su nekkee ci nit ki de ko yàkkal comme safara nu muy lekkee matt li muy def matt bu wow lekk ba mu jeex ba mu doonaat dóom cat su nekkee ci nit tamit noonu lay def affaire am daram du sotti yaakaaram toujours day tas cat nag macha allah ñaan yiñ ci def bari na lool soo demee ci alquran bari na lool soo demee ci sunguf yeeg sunguf yeeg bari na lool kon lu ñun dañuy composé ñaari am na lu ñuy bind après ñu boole ko sunguf yow soo ko amee incha allah su fekkoon cat maanaam cat ci yow cat bu mu fekkee ci yew rek bu dee bu jigéen bi wala bu góor bi dina ko dindi maanaam dina ko raxas ba mu set nit ki il faut mu set yaramam set yaramam normal parce que yaram yaram nit ki daa amee biddew biddew bi nag mu ngi topp nit ki rek su yaramam normale biddew bi dina normal dina leer nekk palaasam werse euh, mel ni mu war a mer maanaam mu leer wante nit ki bu dee yaram mu ngi tilim lé maanaam euh, normalul biddew bi du mën a normal kon loolu moo tax nit yi il faut ñu góorgóorlu ci seen bopp ñuy fóot yaram yi gis nga tout chaque jour yaa ngi sangu njàmpi saabu ah ndox ah yaa ngi koy boole xam nga doon def ndox kese wala nga def njàmpe kese wala nga def saabu kese da ngay boole affaire yi kon loolu moo tax nit ni ngay fóote sa bitti ci wàllu tilimaa yi noonu nga war a fóote tamit sa wàllu maanaam sa biir ak sa bitti yëpp ci wàllu saafara yeeg yu mel noonu ngir chat yeeg ngir uh, rab yeeg ngir liggéey yeeg ngir yeneen ak yeneen incha allah loolu ñaan yi bari nañ uh, ñu ngi fi incha allah loolu laa ci doon juñ. macha allah Thierno Tidiane Ba leeral yi am na solo trop daanaka bu ñu paree ci mbirum. kaaraange yaakaar naa nit bu bu muccee ba pare dana bëgg a mos te nekk nii jamono ji ñu nekk dafa nekk jamono koom-koom jamono am-am donc njëriñal ubbeeku dafa nekk lu ama am solo Thierno Tidiane Ba lan mooy sa diggante ubbeeku. waaw chat boobu bi ma doon wax léegi gis nga ndomb bi may defar lii e, ci wàllu muslaay am naa ne muslaay bi mu ngi doon ñëw am naa ne moom lay jiital léegi après mu ñëw ci ubbeeku bi. Euh, ndax muslaay dafa am solo ci nit yàlla bi mu waxee ne qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin naas wallahu yaasimu min an naas yu mel noonu euh, nit ki dafa war a muslu ci boroomam ndax ci moom rek la war ci moom lay muslu wala ci moom lay lakku mu mën a raw ndax moom moom mooy rabbil alamin soo lakkoo ci keneen soo moytul affaire bi mën na ko jëlaale wante ci yàlla rek ngay def tawakkul après mu doy la loolu moo eh, de yaa ngi gis eh, maanaam ndomb bi baax na lool ci wàllu muslaay bu dee chat eh, bot yu bon lamiñ yu bon jinn ak nit baax na ci lool am na ñu bari ñu koy soxla fii ba bitim réew dañ koy defal ay nit am na solo lool li ñu sànga sàngat yi tamit bari nañu lool ci wàllu alquran bi ci wàllu sunguf dinaa ci tudd benn sirru tabat yada mooy tappateta am am na am na ay kayfiyaat yoo koy def wante am na lim boo koy bind moom tamit soo bindee lim boobu noonu am na sunguf bu muy àndal mooy garab boo xam ne nit moo ci daanoon euh, dee euh, nit moo garab boobu sunguf ba fa jóge nga boole fa siru tabat yadaa boobu wala ci lim tabat yadaa boobu nit ku ko def saafar mu koy sàngoo ku ko laal moom fekk daa repp rek waaw ku repp rek moo koy laal kon loolu moo tax nit bul def kenn lu bon wante sañ nga ñàkk sa bopp nag ñagal sa bopp ku la laal ah moo la laal moo tooñ yàlla moom nee na laa yuhibbullahul jahra bis suuy illa man zulima maanaam yàlla daal bëggul kenn kuy feeñal lu bon kana ku ñu tooñ ku ñu saaga sa sul nekkee nga féyu wa fa in uqibtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi loolu alquran wa suñu leen tooñe ngeen féyu rek comme ni ñu leen tooñee kon loolu moo tax nag eh, man duma defal kenn lu bon waan soo ñëwee dinaa defal musluwaay yu am solo ci wàllu maanaam ci sa wàllu yaram looy ci wàllu ndombe yeeg ci wàllu sàngati sàngati yeeg incha allah dina am solo lool soo ko amee ku liggéey du ko jik kee daanu woon ci garab bi dee daal soo moytul moom loolu moo koy def dama xamul nag oto moo koy laal wala garab moo koy laal wala leneen leneen moo koy laal nit sax mën na ko jam loolu yëpp nag na uzubillah musu waaw xam nga ñaar lañ soo waxee muslu muslaay rek da nga war a wax ubbeeku parce que biir ak bitti loo gis dafa am zaahir am baatin nit nag lu gën ci moom toujours muy jiital muslaay léegi ubbeeku nag moom tamit yaatu na lool macha allah ci alquran sungu fiyeek yaatu na lool lool lool eh, yi bari nañu tamit am nañu ci yu bari yu bari yoo xam ne soo ko amee dina la jëriñ mën na yàgg ak yow tamit nit mën nag am mu koy sangoo trois mois wala lu ëpp trois mois sax mu koy utiliser fekk du soxla beneen saafara xam nga nit yu bari lu tax doo doo soo leen ñaanale ni ñu ko war a gisee duñu ko gisee noon ñoom ñoo setul ñu bari danga leen war a wax man kuy sangoo sama saa samay saafara ku koy sangoo doo doo doo mooy bu dee yaa ngi koy sangoo ngay mooy doo gis dara doo gis dara wala samay samay sunguf yaa ngi koy sangoo te yaa ngi def leneen dira bi nga koy sangoo yaa ngi def ah lu mënul nekk yaa ngi yow dangay fóot ah nga soo yër yi kay soo koy fóot danga koy fóota pour mu set wan bu dee dangay fóot ba yàgg nga jël ko nga defar ko ci ci ci ci ci salte bi kañ lay set loolu mooy yaram bi nag nit sooy sangu yu mel noonu si yama alquraana danga war a set danga war a góorgóorlu bu baax nga bañ a yàq sa sa say saafara parce que danga fay danga fay danga joxe sa alal après ñu ñu defal la kon danga war a fonk loolu yàlla nee na wala tulqu aydikum ila tahluka bu leen jël seen bopp ngeen sànni sa sànni seen bopp ci lu alkaande loolu mooy sa sànni bopp ci alkaande parce que yaa ngi yàq sa alal ci zéro loolu moo tax nag nit góor jigéen nañu farlu bu baax suñu sangu saafara yi eh, nañu nañu nañu nañu téye seen bopp waaw du ma wax kenn nag moom moom boppam waaw moo xam su saafara su jeexee lu muy defi loolu ma sama yow nekkul ci loolu wan man da su ma jox sa su ma la jox sa sama saafara su ma fàttiwul dinaa la wax ne diira bi nga koy sangoo daal sa nga ci nga bañ a génn nga bañ moy nga bañ a def lu la waxul léegi nag ni suy sangu fi nga sangoo yow fi nga taxaw nga sangu li gën nga taxaw fa ba saafara bi fendi bu dee garab lu bu dee al alquran lu mu mën a doon bi mu fendi parce que li nga sangu daa am barke barke boobu day naaw jëm ci kaw day ñëwaat su la fekkul nga taxaw foofu rek day wàccaat foofu yaa fekk déplacé nga kon da nga war a taxaw be sa yaram findi su wàccee fekkal foofu kon ñu bëri tamit lu tax du ñu gis dara mooy duñu sango ba pare rek déplacé su boobaa na barke bis ñëwaate doo la fekk foofu alquraan ak eh, maanaam eh, sunguf ñooy ànd am na ñoo xam dañuy wax ne alquraan njëkkoon na wàcc ñu def ko saafara ñu sotti ko ci garab yi am na ñu wax lool am na ñoo xam ne gëmuñu garab duñu nangu sax sangoo garab waa su leen neexee wante garab yàlla tudd na ko ci alquran euh, ni mu tuddee biddéew tuddee noonu weer wala jant ah wa alchamsu wal qamar euh, wa najm wa shajar loolu yëpp yàlla wax na ko ci alquran kon garab ismullahil azam la turu yàlla la kon nañu fonk lépp fonk alquran fonk garab yi parce que laay boo gis am na garabam incha allah. macha allah Thierno Tidiane ba leeral yi am na solo trop macha allah daanaka comme ni nga ko waxee mbiram muslaay ak ubbeeku daanaka ñoom ñaar benn mënul dem sa benn mënul dem bàyyi sa moroom biir ak biti la donc muslaay ak mbirum ubbeeku daanaka nekk na tey jii lu ama am solo te ne képp kuy jaam war nga ko farataayoo war nga ko gànnaayoo ndaxte nekk jamono yi ñu toll nekk na jamono xat-xat jamono def-def donc njëriñal kaaraange nekk na lu am solo tamit njëriñal ubbeeku tamit nekk na lu am solo sax àdduna bi jamono yu ñu toll nekk na jamono koom-koom jamono am-am sëriñ bi bu ñu paree ci loolu tamit bëgg naa tuuti ñu waxtaanee mbiram noob tasxiir boole danaka dañuy faral di ko dégg lu bari mais ñu bëri tey jii dañ ci am ay lënt-lënt tey jii boo ñu doon laaye biir ci mbiram nopp lan lay doon lan mooy dégg-déggi nopp sëriñ bi ana lan mooy njëriñal nopp. xam nga mag ñi ñu ge ñu bari ci ñoom daawuñu bind xaatim mënuñu woon sax xaatim ñu bari ci ñoom li doon bind rek mooy alquran mooy laayaat yi noonu lañ koy bind wax laaya bi ci lii lay dox. ci lii lay jëriñ su la suñu lay ñaanal bu dee ci wàllu cofeel ñu dugal tur ci laay boobu noon bu dee ko bëgg am jëkkër wala ko bëgg am soxna euh, maanaam ñu defal ko ci laay yooyu noonu euh, cofeel nag mooy mahabba mooy mooy mooy boole ay nit pour ñu soppant pour ñu bëggante day jël lépp nag du diggante góor ak jigéen ñoo xam dañu bëgg sëy rek wala dañu bëggante noonu rek bu dee waajur ak doomam walla patron ak surgaam yu mel noonu yëpp bari na daal Eh, loolu am na solo lool bari na ci alquran ci xawaatim yi tamit soo demee mu ngi ci xawaatim yi soo mënee xaatim moom daanaka dangay defa aaju bi rek nga calculer nga def adat bi nga rëdd xaatim bi nga dugal li ngay dugal te zikar nag dangay wird nag soo dugalee ba pare am na xaatim yoo il nga wird am na ñoo am na xaatim yoo xam ne doo wird sax defee rek baax na wante am na yoo xam ne il faut nga zikar il faut nga zikar maanaam lim bi nga war a zikar nga zikar ko bés yi nga war a zikar tamit nga zikar leen so pare incha allah aaj bi moon sotti eh, yàlla yàllaay nangu te tamit yàlla lu mu def rek loolu moo rafet eh, kullu ma faala al jalil huwa al jamil yàlla lu mu lu mu lu mu dogaat rek loolu loolu moo sell loolu moo rafet loolu moo gën ci nit ki parce que nit ki lii day ñaan lii yàlla defal ma lii wala yàlla day xool li gën ci moom mu defal ko ko loolu moo tax nag nit day rafet njoortu ci yàlla rafet njoort tamit jaamu yàlla yi kenn du tàllal yàlla loxo yàlla delloo say say loxo mu nekk neen kenn kenn kenn même bu doon yéeféer bi sax rahmatullah yërmandi yàlla dafa yaatu yaatu yaatu ci lépp jullit beeg waaw jullit beeg yéeféer beeg bu doon yéeféer yàlla ni mu baree yërmande moom su xamee loolu day jàppan mosu day day dem àjjana jullit bi tamit yàlla ni mu amee sañ-sañ su xamee loolu day jàppan mosu day day def safara parce que yàlla faalu li ma yurid cofeel am na ay fas yuñ ci def fas yu am solo am nañ tamit ay kayfiyaat ay laayaat ay xawaatim yoo xam ne tamit dañ ko ci def ngir boole ñaar gën a soppante ngir boggante wala ñoo xam ne dañuy feewaloo dañuy xuloo d'accorduñu loolu yëpp macha allah tasxiir la taalif la kon incha allah loolu laa ciy junj. macha allah ci Tidiane Ba leeral am na solo trop macha allah daanaka loolu moo nekkoon ci mbiram nopp. loolu tamit bëgg na tuuti ñu waxtaanee jafe-jafe yi nga xam ne moom lañuy faral di gis ci néegu sey buñ ci gën a ràññee mooy ñàkkum am doom bi avant tout sax bëgg naa tamit ñu waxtaanee mbirum tamit jamono ji ñu tollu tamit sëriñ bi dinañ gis jigéen dana mel nu ko neex am taar tollu ci atum sëy am jëkkër nekk li nga xam ne day doon lu koy tumranke dinañ gis tamit góor dana toll ci atum wut soxna am tey jii lu mu mun a yoree soxna tamit amum soxna nekk lu xam ne loolu da koy jafe tey jii ñi nga xam ne ñu ngi ci situation yooyu noonu sëriñ bi ana yan tegtal nga am ci seen mbir pour tey jii mu mun a saafaraw waaw nit ku nekk daal nga xam sa biddéew dafa am solo lool parce que biddéew bu nekk am na lu muy laaj waaw am na lu muy laaj yaa xam biddéew ci safara la nekk yaa xam ci ndox la nekk yaa xam ci jaww ji la nekk mooy ci ngelaw yaa xam ci suuf la nekk biddéew bu nekk dafa am lu muy laaj euh, soo xamee biddéew nit ki nag nga xam lan mooy gàllankooram biddéew bi lu mu laaj ban sarax la laaj wala ban gàllankoor moo jàpp nit ki est-ce que rab moo koy def loolu wala cat moo ko koy def wala liggéey moo ko koy def li gën a bari nag e, liggéey maanaam kii lii mën na ko def e, shaytaan mooy rab mën na ko def wala maanaam cat def ko ñu gën a bari pour ñu am e, borom kër jafe-jafe la wala pour ñu am soxna jafe-jafe la mën nañu am soxna tey tey ñetti fa ñaari fan ñetti weer ñu taxali ko loolu tamit rab da koy def cat tamit da koy def kon nit ki il faut nga xam yow sa biddéew est-ce que yéen seen biddéew ànd na tamit il faut nga xam loolu parce que am na seen tur soo ko jëlee léegi kii euh, Samba mu ngi bëgg euh, Fatima dangay jël tur yi nga calculer leen ah, nga nga lim tur yi am na noo koy wàññee li des di nga xam ne ñii mën nañu sey wala mënuñu sëy sey ce que suñu sëyee tamit sey bi dina yàgg wal du yàgg loolu tamit il faut nga xam ko doo tax sëy yu bari léegi duñu yàgg lu tax parce que liñ ci war a def duñu ko def li yonente bi wax war rek listixaar moom ku koy def doo mos a rëccu kon loolu moo tax nañ jiital listixaar yi maa leen di laaya biir bu baax baax jigéen yeeg góor ñeeg gën for forlu seen bopp ngir toppatoo seen bopp nit daana du bay maanaam du bay boppam soo bayee sa bopp nag saytaan yi yëpp la sayaatinil jinni wala ins na parce que ñaar la ñëpp dañ lay yeb ñu la yebee nag su booba sa mbir dina jafe lool kon loolu laa leen di wax incha allah nañu gën macha allah Thierno Tidiane ba leerali am na solo trop daanaka waxtaan bi mu nga bëgg gudd waxtu nekk na li nga xam ne daf la tënk mais sëriñ bi mënuñu la seet si te du am ay pàcc yoo xam ne danañ ci dugg bi ma la bëgg a laaj tamit bëggoon naa tuuti ñu def si taxaw seetlu waxtaan si tuuti mooy mbiru feebaru biir yi nga xam ne tey jii nekk na gàllankoor. waaw euh, feebaru biir maanaam borom biir yu rëy yi ñi ci gën a bari nag dañu télé mën na doon jigéen mën na doon góor te am na feebar yu nekk ci biir yi mën na maanaam yi ci gën a bari mën a nekk euh, émori wala mu nekk euh, maanaam feebaru sedd loolu de bi gën na feebaru sedd parce que nit su mel de euh, soo seetee daanaka pour mu am kattan ci wàllu sëy day néew lool góor jigéen yëpp am nañu benn sunguf boo xam nit su ko amee da koy naan meew ci meew la koy def nag su ko naanee day dawloo biiram biir bi lépp lu nekkoon ci moom day sotteeku yaram wi da koy maanaam sunguf bi day xëcc loolu ci biir bi raxas biir bi ba mu set wecc jigéen bu mënul am doom sax su booba dina am doom waaw jigéen bu doom su booba dina am doom su ànd ak borom këram su yàlla su ko yàlla tuddee rek dina am doom parce que am na ñoo xam ne yàlla mayu leen pour ñu am doom wante bu dee loolu rek moo nekkoon problème bi biir bi ma amoon problème su naanee sungu boobu lépp lu nekkoon moom dina génn bu dee góor bu télé woon feebar sedd boobu noonu lépp dina jeex sungu boobu nag sungu bu am solo la am na moom tamit macha allah ñu bari ñu ngi ci faju fii ba bitim réew kon mënuñu am doom seen sunguf mu ngi fi wala dañu télé seen sunguf mu ngi fi kon ñoom loolu laa leen di kii laay laay laay biir waaw pour mën a faj seen biir parce que benn bari macha allah am nañu problème mënatuñu dara euh, ñu ngi jàmbat rek macha allah kon nañu kii sunguf boobu noonu nañu ko am incha allah. macha allah Thierno Tidiane Ba leeral li am na solo sëriñ bi ñi nga xam ne tey jii dañu nekk ci place bëgg fa sax lan mooy tegtal yi ñi nga xam ne tey jii daanaka day am nit yoo xam ne des fois mun nañ nekk ci ay place ñu leen fay buntu xatal te nekkul li nga xam ne seen coobare la bëgg nañ fa sax lan mooy tegtal yi. waaw ku nekk ci place nga bëgg sax ci palaas bi xam nga ñu gën a bari dañu nekk fenn mën nañu luyee ci kër bëgg yàgg foofu te mën na am dañu luyee tuuti rek eh, borom kër ga dama soxla sama kër ah loolu nag moo jaadu sax nit su soxla këram dañ ko war a jox këram wala soxla place am dañ ko war a jox place wante nekk ci place daal comme tey yaa ngi liggéey ci liggéey ci benn euh, entreprise comme usine wala euh, feneen ak feneen nga bëgg fa yàgg comme yooyu lay wax usine ba wala yu mel noonu waaw société yooyu noonu nga bëgg ba yàgg lool parce que am nga fa salaire bu baax nga bëgg fa yàgg lool lool lool lool parce que sa teraangal am na looy def soo ko defee soo ko yóbboo ci boobu noonu yaa xam den ko fay sànni wala den ko koy suul kenn loo la fa jëlee fii ak affaire boobu mu ngi foofu mu ngi foofu kenn kenn kenn mënoo mënoo la génne foofu ñu lay xeex guddi bëccëg dara dara jàmm rek ngay am kon loolu tamit alquran la ah, kon alquran fii zikrukum lépp mu ngi ci incha allah waaw waaw ñi koy ñi koy jàmbat bari nañu lool coow xam naa ne foofu la ñu tëjee ñi koy jàmbat bari nañu lool lool lool kër yi ngay gis mu rafet ñu rafet lool ci réew mi oo oh, xam soo ci duggee ci biir rek nga waaru yamal ci bitti de bul dugg ci biir de soo duggee ci biir moom suñu tegoon suñu tegoon añ sax doo añ parce que da ngay gis comportement yu doy waar diggante jëkkër yeeg soxna yeeg ñu nekk ci biir kër gi doy war lool wala yeneen coow yeneen yeneen coow yu bari yoo xam ne coow moo ko topp nara dem kaso wala yu mel noonu ba fay coow daal loolu tamit macha allah ci wàllu alquran bari na lool ku am coow incha allah suñu waxtaanee ak moom rek dañu ko dimbali jàppale bu baax a baax ba coow boobu dina fay wante ku tooñ nag yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi neen sa mbokk su tooñe su tooñe su tooñe suñu ko tooñe jàppale ko rek su tooñe nag dañ ko wax yow yaa tooñ bayil tooñ ku ñu tooñ moom xam nga ni ko koy ni ñu koy ni ñu koy jàppale kon loolu laay ci junj léegi nag dina am lu ma maye ci fi may tëje euh, tey parce que nit yi tamit euh, nga di may dara da ci am solo wax ba jeex rek nga côté affaire yëpp nga dem sa yoon tamit noonu maanaam istixfaar dafa am solo istixfaar mooy astaxfirullah dafa am lool ci nit parce que ñun dañoo tilim rek yonent bi neen kulli ibnu aadama xata wa xayru xata ina tawaabuun doomu aadama day juum rek toujours toujours li gën nag ñuy juum ñuy jéggalu kon nañu jéggalu yàlla yonent bi neen chaque jour li gën a néew man dinaa def istixfaar téeméer wala mu def ko soixante-dix fois kon yonent bi ma wax lool te mooy suñu idole mooy suñu référence maanaam moom la ñu roy kon ñun tamit dañu ko war bañ na Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bañ na ko sax moom jox na taalibe yi eh, subax ngoon téeméer astaghfirullah mu ànd ak eh, wadifa astaghfirullah azim alladi la ilaha wal qayyim fanweer léegi nag yooyu yëpp per bu nekk rek paan paanu ndox la yaa ngi sangu ci paan yooyu est-ce que yow di nga tilim ah lépp lu mu fekk ci yow bu dee suba li fanaan ci yow bàkkaar istighfar bi dina ko fóot soo yendee ci bàkkaar tamit ngoon istighfar bu si ñëwee dina ko fóot kon loolu moo tax astaghfirullah yonente nee na ku ku ku ko saxoo rek bépp xataay bo nekk wala bépp jafe-jafe bo am yàlla dina ko dindi kon loolu moo tax na soo bëggee bés penc sax soo eh, suñu la joxee sa sa dossier nga kontaan na nga bari istighfar loolu hadis yonente bi la kon alquran wax na na ngeen jéggalu seen borom bu dee ngeen bëgg mu taw dina taw bu dee suuf dina naat bu dee eh, seen wërsëg bu dee seen njaboot wala am njaboot maanaam ku bëgg am njaboot sax baril istighfar loolu moo tax astaghfirullah am na solo lool yaa xam astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kenn doo ko astag astag astaghfirullah astaghfirullah de astaghfirullah nga yem foofu rek baax na wala astaghfirullah al la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum def baax na kon loolu laa ci ak beneen bi mooy alam nasra nga koy jàng bés maanaam soo jullee ba pare yaa xam sept fois nga koy jàng wala onze fois nga koy jàng fukki maanaam fukki yoon ak benn loo ci jàng sa soo jullee ba pare am na solo lool tamit day dimbali nit beneen bi mooy suratul waaqia am na solo lool yonent sa sallam nee na nañu wax jigéen yi sax nañu jàng suratul waaqia suñu doom yu jigéen yi nañu leen di kirtal maanaam ñuy jàng suratul waaqia parce que wërsëg la kon ñuy jàng suratul waaqia yonent bi ne ku koy jàng doo mos a ñàkk kon loolu tamit dina ko maye beneen bi mooy yaa hayyu yaa hayyu yaa qayyum nga koy def suba ngoon soo ko mën a def saa 74 fois baax na 174 fois soo jullee suba 174 soo jullee takkusaan wala timis yaa xam baax na lool parce que day dëgëral sa te da dundal al hayyu al qayyum ah yàlla moo mel noonu kon da koy dundal day dundal sa mbir soo bëggee sa mbir dund rek muy avancé normalement rek dangay sax ci yaa hayyu yaa qayyum kon yi laa waxoon ne dinaa ko dinaa ko may beneen bi mooy wàllu muslaay soo jullee ba pare Ya Salaamu onze fois Ya Mu'minu onze Ya Hafizu onze fois Ya Hafizu onze fois soo ci mënee boole nag wallahu ya'simuka mina naas onze fois tamit am na solo kon lii laa bëggoon may di sant yàlla bu baax eh, di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp nag yéen jéggal bu baax yenn saa yi olof bi day xaw doy war lool wante li ma bëgg xam ngeen ko eh, di leen gërëm di leen ñaanal yàlla tawfiq taysir yokkute ci zaahir ci wàllu baatin ñaan jàmm ci réew mi ñaan ko ci àddina bi ñaan ko ci Palestine yàlla may leen ndam ci kaw yéefér yi ci kaw noon yi alquran neen in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu